tay dafa am lu wax de nee na kuy raam di la bokk boo amee oto yóbbaale la. wallaahi dëgg la nit bu yéenee dëkk bi jàmm yéene Sénégal jàmm créé entreprise parce que bëri na ñu yor ay milliards bokk ko ci banque yi dee ci leen. moom defu ko seeni njaboot comme kii bu mat la barke alquranu karim président dalal la jàmm. sa sa say say militants ñoo fi ne ah, li ma dégg si sa programme ak li ngay sorti yëpp li ngay wax am nga yaakaar ndax tey boobu Sénégal yow yaa ko mën a xam man ko déggee man dee ngay doy kon nag dama yaakaar ne léegi man ci mbir mi dañ koy gàttal dama doon wax rek su yow jeexalee na dem si daan ñëw loolu kese moo fi ne geeru dem si daan ñëw

waaye yéen a ngi xam liggéey jaamu yàlla li ngeen wax lu dul liggéey ak jaamu yàlla rek ñu kontaan nañ ci moom lool ndax kàddu taale mii lépp lu fee ñëw mu jaar ci moom xol yi ñëpp danañ ci seet ñun nag ñu ngi lay ñaan ñun waa Wilane Guy dafa am luñ manqué la ndax courant moom bëgg nañ ndax tey jii bu dëkk bi jigéen dëkk bi dañu ci mën a liggéey ak ndox bu neex